ci Zik FM di journalu faits divers yi. suba su ne suñu teel di lu jotee altine ba àjjuma tës di xew-xewu jamono ci biir quartier yi. tës di ay di ber yu ngeen di nettalil seen bopp. yéen ñi suñu auditeurs. asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taalaa wa barakaatu. maa ngi leen di nuyu bu baax maam noo def. sant yàlla bu baax El Hadj. man noo doxalee. voilà ñu ngi sant bu baax a baax. naka conférence bi kenn jël. El hmm. ah, Hadj da nga doon conférence de. man noonu. ah ok. am na conférence bi ma doon def mais damaa amoon euh, damaa damaa yeewu tawat. dem na yëri daal bu sëriñ. ay a jël. te yaa ci digg bi. waaw am jox ko ay communiqué am jox ko ay jox waagaan nuyu naa la fay bi rafet waagaan waaw defal say communiqué te bàyyi waagaan. dugg dugg waagaan xadis waagaan. waagaan ak kan. waagaan Kumba Sall. ak kan hmm? kon nag waat ci moom. kii Mbaye Diaw Mbaye Diaw sama xarit la. waaw mu ngi jël fu muy boof ay nenam yoonu xale nekku fa. Ah! waaw waaw. laaj day waa gànde li ngay wax ba doo ko mayonnaise. waaw mu ko mayonnaise de koo gisul. ku nekk euh, càpp jël wàllam. kàttanu borom bi de. kàttanu hmm? waxee ba waagaan duñ ci càpp. baax na du ma ko mayonnaise de. ma xam ne am nga may yàlla. lu mu gën waa gànde dinañ ci càpp. ku nekk ko nangu de. ma cappee <laughs> ko dooro loolu laa cappee waagaan. dama koy capp. Ah, capp naa kan tamit capp naa naa ab sa baaw oh. waaw kook moom dégg naa moom dañ koy. naa ko. waaw. parce bi. damaa dem ba minti. doomu ndeyu mami Babacar. parce que sëriñ bi doo jëpp kenn. Ah, waaw baax na laaj. waaw baax na. waaw. diggante yàq. Assane maa ngi lay nuyu pompiste. diggante yëpp lay yàq. déet waaw waaw. na de. diggante yëpp lay yàq de maa la wax loolu. waaye dëkk bi ndawal gi noonu la seere ba léegi. Mm-hmm. alaaji jël sa daa yokk wàkkatum rax ndawal kooku maam jaara bàyyi ma dama laa bàyyi voilà ginaar dafa yokk léegi nen neneen yokk na nag nen yokk na mm-hmm. waaw hmm? ji neenañ tamit am nag yokkute hmm? lépp yokk baa lu jëm ci feet bi baa lépp yokku nañ ubbi rek euh, nañ nañ yombal euh, ñiy bay seen i bay mu ñëw pompiteer bi soble bi doon njëkk yi mën a wàññeeku. maam hmm. bay maam bay hmm? njëkk ni mu yokkoo sax. non dafa yéeme. wallaahi gis nga soo duggee ci ci ci grande surface àllaaj hmm. lépp loo xam ne yaa ngi ko doon jëndee par exemple mille quatre cent. mi ngi lay revenir léegi mille neuf cent et quelque. lépp loo xam ne ay neuf cent quatre-vingt-dix nga ko doon jëndee xam nga ñoom ay prix commerciaux la yor. Mm-hmm. léegi dañ lay def ay mille trois cent mille quatre cent. Mm-hmm. lépp loo xam ne da nga ko daan jëndee ay mille cinq cent et quelque léegi mi ngi ci mille neuf cent et quelque. wuu. Mm-hmm. man ba ma duggee man dama gëj dugg mais keroog ba ma duggee ci supermarché bii bon am naa choc. Mame Mbaye am naa choc. xam nga souvent doo ci bàyyi ay plus de 300 plus de 500 parfois mooy tegu ci prix yi maanaam Sénégal nan ma wax lan moo fi yokkul. amul. nan ma wax actuellement nii nii lan moo fi yokkul gis nga lekk moo gën a élémentaire moo lay téye nga taxaw saako bu deful du taxaw. Hmm. te loolu moo gën a jafe am fi mu toll nii Sénégal. Hmm. Hmm. moo gën a jafe am. mburu yokku na. ceeb yokku na. diwlin yokku na. suukar yokku na mais kilo suukar léegi cent francs lay jar. kilo suukar kilo suukar. bi ñu waxoon ne wàññi nañu. 700 francs lay jar amul boutique bu ko dul jaayee 700 francs 700 lañ koy jaayee. ba biig de moom laa ko jëndee. moom lay jar kilo ceeb 500 francs lay jar Mame bay kilo ceeb 500 francs. lépp yokk. dawlin 1400 francs mam boo demee yi takk soxna boo joxee can ñun la. can gi daa yokk doole can gi sax day yokk dañ waxante dëgg. nekk takk jabar yombatul de jigéen ñi sax dañoo yokk. mais léegi fii réew mi toll. xaalis amul mm. léegi lépp yokk. ñoom man su lekkee am nañu chance. maa du warugar yi. kenn takkatul ñaareel. waaye <laughs> fan yii dama am lu ma metti ba crispé. parce que tellement da ngay xalaat ñi nga xam ne dañuy dañuy pour nga lekk il faut nga def effort boo xam ne pour nga lekk. yow man jën bi ngay teg ci kaw ceeb bi sax jëm rek pour nga am ko problème la. fi mu koy gis. man lay yow li ngay wax ni man dama koo jooy. ma yaa daw njëkk tiraay doo ko gis. sama yuuxu yàlla sama yuuxu yàlla sama daanu yooyu mooy soog mooy soog a daan mooy soog a <laughs> arrivé man lay moo tax man li ngay wax nii frais gi ñeenti wu ma sama. njëkk tiraay doo ko gis xam nga koor gi yu bëri day feeñ. koor gi yu bëri day feeñ. parce que da ngay xalaat ne li gën a métti ci àdduna mooy woor ba ngoon amoo loo dogoo. donc yow je sais pas mais koor kiw euh, solidarité bi day gën a yeewu ci yow. Mm-hmm, mm-hmm. léegi nag man li may métti mooy. li ngay xalaate ñi nga xam ne yow au moins am nga as néew benn tàndarma boo xam ne di nga ko lekk mais am na ñoo xam ne tàndarma boobu sax mënuñu ko am am na ñoo xam ne xamuñu ne ñàkk am na waaw kay merci alaay mhm. dañuy bu ñuy dog dañuy merci laay yow yaa dem supermarché jëndi yaa dem grande surface jëndi mhm. yaa dem marché ba nduggi dem yaa dem boutique ba jëndi yow bu yaay dem ci waañ wa toggi mhm. yaay lal yaay dig bool bi nit ñi lekk mais am na ñoo xam ni mat na léegi fukki at ci ginnaaw jàpp jàpp juróom-ñetti at ci ginnaaw daawoon nañu ko def mais léegi defatuñ ko nekk nekkatuñ ci stade boobu. Mm-hmm. xamuñu lu ceeb di jaar parce que togguñu ceeb. xamuñu lu marché ba parce que seen jabar demul marché ay traiteur la ñu am yuy gérer xamuñu supermarché ba lii ak lii lii la fay jar ñoom li ñu xam mooy li ñu bëgg mu nekk à leur disposition ñoom daal li ñuy commandé mooy benn boutique bu nekk euh, tugal ci gën a cher. nangam nangam euh, ñu. ñu commandé ko une dizaine wala douzaine yónnee leen ko foofu la seen dund tollu. Mhm. yow yaa ngi wax ay loyer appartement deux chambres salon. Mhm. ñoom domaine la ñu am biir Ndakaaru. te fukki at ci ginnaaw dañu doon luye comme yow xam nañu li xew mais dañu def fukki at yu ñu dundatul loolu bu foog nañu ni loolu existatul seeni jigéen ñaale dundatuñu loolu seeni soxna dundatuñu loolu seen doom nekkatul taxawaalu di football ci mbedd mi. Mhm. xamatuñu loolu. léegi nag ñooñu boo gisee bu ñu jëlee décision di yokk mën leen di di kii wàññi mën leen wàññiwuñu tous parce que dañoo xamul woon li muy jar. Mhm. wàññiwuñu. xam nga gaz bi la moo tax solution am ci bu gaaw parce que ñoom bu gaz amul seen i four yi leen seen i traiteur di toggale du dox. <laughs> ah moo tax ñu dóor ci kaw taabal ji solution am ci gaz bi à part gaz bi wax ma. donc donc solution bu rapide bi am ci gaz bi. ñoom seen seen wàññi lañ sóoraale. wax ma leneen lu gaaw comme ni solution gaz bi gaawee taf taf ñu dóor total mise en demeure. mos ngaa gis Sénégal ñu gaawee dóore noonu tubaab mise en demeure. <laughs> parce que seen i gaz seen gaz ak seen i seen affaire yu ndox yi ñuy soxla ñoom seen i kër. ndax daañu sangu nag. waaw. Hmm. ñu leen dressel taabal nag. Hmm. yooyu nag ñi koy def dafa am. ay minimum yu ñu soxla. Hmm. mooy am na ci ñoo xam ñu leen toggal sax am ñu nationalité sénégalaise. Ah, ok am na ci. ñoo xam ñu leen di toggal. amuñu ay nationalité sénégalaise. dañ naan sénégalais daa daa mën a wax. waaye yow. musaa wax nga dëgg de Moussa Aaj nee na lépp yokk. non lépp yokk. wax nga dëgg man dama bëgg. ci cri de bii may def nii. ko mën a jottali président de la république mu jot xam a maal bi mi ngi fan alaaji xam nga maal bi mu ngi fan xam nga bi mu ngi fan alaaji bu dee da nga yor sa compte vingt milliards par exemple mhm. wara nga yor trente millions quarante millions alaaji bu ñu nee par exemple ceeb mi ngi doon jar trois cent léegi ceeb yokk nañ ci deux cent muy jar cinq cent mhm. yow da naan deux cent bi da nga koy minimiser sama fu may na vingt mille di dem. di dem su doy vingt vingt trois mille laa dégg xam nga côté vingt cinq mille yooyu. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. bouteille de diwlin bi nga xam ne vingt litres la doon jar quatorze mille. mi ngi ci vingt quatre mille. quatorze mille la doon jar <laughs> yéeg ba vingt quatre mille alaaj hmm? waaw saako meew bi léegi mu ngi ci soixante seize mille xaw ma. mais imagine loolu noonu. muy meew muus juróom amatul de. te pourtant xale yi dañ ñu ne bu ñu naan café suñu doom bu ñu xëyee na leen defaral meew boole dute ñu naan. boo jëndul sachet bu 100 francs xalaatoo jënd sachet 100 francs mooy bu juróom bi bu tuuti lañ lay jaay. am na ñoo xale yoo xam ne da ngay xëy gis leen ndeysaan benn michu fukki dërëm bi ñu séddale leen ko yu dagg yu ndaw ñu téye di dem dagg yu ndaw xale yi téye di dem. ñoom la ñu garanti ndékki kër yu ca bari. si. ñi des ñoom ndékkeetuñu. waxuñu pour pour pour pour dénigrer waxuñu pour dara mais dañoo wax parce que man moom personnellement man gis askan boo xam ne day souffrir man faatoo ma ko gën hmm. te gëm naa ne fii nii Sénégal jëm nii wallahi fa ñuy jëm du neex nit ñi sonn nañu à commencer par moi man dama koy commencer ci sama bopp man. parce que léeg-léeg ma am lu ma bëgg jënd. mu hmm. tëmm. Hmm. donc damay boole sama bopp ci sénégalais lambda bi. yàlla xam na ni nga ak ngaa bëri ñoo tane ak ni nga koy yëgee ak ngaa bëri moo tax damay sànq déggoo ma ala dama ne dama ne dama ne mm-hmm. man peut-être yàlla may na ma as tuut soo xam ne su ma xëyee naa am tàndarma su ma xam ne su dog jotee naa ko dog hmm. ba egg ca fuuf ga waaye su may lëmb damay lëmbaale ñëpp parce que ñun ñëpp dañoo nekk ci loo bi alaaji man aw ma compte boo xam ne am naa ci un million aw ma compte boo xam ne am naa ci vingt ne am na ñoo xam ne lu googu ma nekk sax fekku leen ci léegi boo ko xëyee nga ne ko tey yow pour nga lekk il te faut dix mille francs parce que dëkk bii pour nga lekk il loolu mhm. ak njëkk yi ni mu toll donc président de la république dañ koy wax ne ko lii moo am Sénégal bu jaree ñu def enquête ñu def enquête lii xam fi am. waaw yow li ngay wax nii. ñu xiif jottali la ko ci kaw. waaw. dañuy dem ci ñi kaw ni leen ña ci rajo ba ña nga fay tël-tëli di wax lu ñu xamul di leen attaqué. dañoo xamul. <laughs> loolu la dañuy wax gis nga euh, dañuy wax euh, dëkku kaw gi sànq xam na benn sëriñ bu koy wax mu ne dëkku kaw gi. xiif mu ngi leen di yoot hmm. c'est vrai waaye gis nga ñi dëkk dëkk euh, taax nii ñoo gën a xiif waa kaw gi. waaw baax na parce que boo demee ci kaw gi yow yow El Hadj peut-être di nga a xam li may di nga xam li may wax. Mhm. Ah, nga boo demee ci kaw gi euh, lépp dafa nekk à leur portée. Euh, mën nañ wax bu peut-être léegi na xaw a jafe mais la ngay cere ja ngay lekk yaa koy defar. wallaahi ndeysaan fonde ba ngay ba ngay naan suba gi yaa koy defar. la ngay añee lépp ci yëpp ci àll bi maam loolu amatul de non non mais quelque soit ça moom mooy tane fii nga xam ne quoi qu'on dise ah dëkk dëkk maam mais defal naa mais xam nga am na ñuy béy ba léegi am na am na ñuy béy ba léegi maam diggu li ma wax mais mais contrairement ak ñi nga xam ne ñoo nekk fii fii ñëpp xam nañu ne dund bi dafa cher. am na ñoo xam ne dañuy dëkk. mais est-ce que xam nga Dakar lu mu tartar est-ce que xam nga lu mu tartar ñoo tane ñu ci kaw. moo tane kaw gi de maam. man mënuma gëm loolu xam nga moo tax. ñi nekk fii si dëkk gi yow kaay ma xam dañuy gis ku dëkk si kër gu baax. ala ala si kër gu baax. ma xool ndékki añ reer man manu faa mat. mais loolu moo ne ci kaw gi. mënu faa mat ndékki añ reer du fa mat. maam yow bu dee am na ñoo xam ne ci kaw laaj wax ma la wala benn repas amuñu ko. mais gëm naa ne moom mooy. non du fépp mais gëm naa ne moom mooy tane. billahi kaw gi tanewul maam. Mambay saa bu statistique génnee. ah ñu ne menace famine mi ngi am. kaw gi ci lim Dakar. billahi kaw gi la ñuy lim. c'est vrai peut-être man fi may waxee nga nga nga dul comprendre. maam loo xiif maam loo xiif xiif loo xiif xiif soo demee ci cité bii ñu nekk nii ci ginnaaw nii Dakar laa la wax wallaay di nga fekk de surtout ceeb bu niin boo xam ne ñu ngi ko teg foofu ci bareetul de ah bareetul de dama xam dama ne la sunu ñun fii ñu nekk nii laax ci ginnaaw nii demal mm-hmm. dama la jox exemple la bugguma taxé kenn bugguma joxoñ kenn. je te jure ñi ngay wax ni ñoo dëkk ci réewu taax yi dëkk ci cité résidentielle yi bëri na ñu nga xam ne nii ndékki añ reer mëntuñ ko matale. dañuy fay location 500 je te jure fay location mën na gënal matale leen je maam dafa leer. maam démb man démb laa mujj ci kaw bi. Mhm. Euh, maa ngi lekk koy junj sanq bi ñuy def journal. ci mhm. bloc machinal bi ci télé. Mhm, baykat bu mu saan bay. ren ba déwén du jaaxle lu muy dundee parce que dafay am dugub. Uh-huh. dafay am ñebbe dafay am buuse. <laughs> dugub ak dugub ak ñebbe buuse kër gu ñu nekk ndóol jeex na fa. Uh-huh. alaaji kii alaaji kii nee na ma kaw gi yegg nañu ci ceeb sans tegaay. maanaam ceeb boo xam ne dara accompagné wu ko yegg nañ ci. moom da koy soog a gis ñu loolu. mais mais mais xam nga foofu am na ceeb sans tegaay mais fii di nga gis dugg ci kër goo xam ne doo ko fi gis. ceeb sans ceeb doo ko fi gis. ceeb sans tegaay moom xam nga xam nga loolu nag non loolu loolu bu amee kaw gi. ceeb sans tegaay bu amee. ci moo lay wax ni kaw gi dunduñu. Mhm. parce que bu ñu amoon dugub am soow am suukar dañuy teg ceebu sans tegaay. Mhm. parce que daañu lekk lekk bu gën a baax ceeb boobu. Mhm. te duñ ci sonn. dëgg la mais amatuñu suuf suñu bay. loolu d'accord na donc amuñu dugub. loolu d'accord na amuñu ñebbe fi ñu doon bay jaay nañ ko ñuy wax agro business ñu lotissé ko ay kër. te source de revenu bi bay la woon. ku doon mhm. moom la woon. moom la woon. ki doon bay ki doon bay di am fukki saaku dugub amatul fu mu bay. Mhm. te boo amee fukki saaku dugub xiif jeex na sa kër. Mm. kaw gi dañoo bayatul maam pour am gerte. Mhm. Mm. pour am dugub. Mm-hmm. pour am gajaanga am na xeetu gàncax yoo xam ne dee ci àll bi ay gacaanga ay gajaanga ay ay ay saaña basi. yooyu daanaka dee nañu suñ ci àll yu bëri pratiquement suuna la ñu doon bay suuna ñetti at yi yëpp nanguwul ci suñu côté yële daanaka nit ñaa ngi commencé découragé wu ci bay suuna. gerte ngay bay suuf dañ ko doon toppatoo mag ñi dañ ko doon entreteni mhm. jamonoy cooroon dañuy fekk fi am gi tax ñu gajj ko ruuj ko radu ko taal ko fi nga xam dañu fa bayoon daaw gerte. Mhm. jàtti la bu set wicc dañuy roñ neefare ci kër gi. dem yóbbu ko fa. Mhm. suuf boobu ñuy entretenir di ko labourer di fa sotti engrais daf lay permettre. parce que gisatuñu lu ñu liggéey suñu maire yi am ci gox-goxaat yi gëmloo nañu leen affaire lotissement tey ku ci nekk dagg nga sa làkku bàyyi. Mhm. def ko ay kër. yow ba tool yi sa bay bàyyee ba ci tool yi ne ci ginnaaw kër gi boo ko lotissé pour jaay ko yow yow fooy bàyyee yow fooy dundee xëyoo demoo dikkoo amoo benn qualification. amoo foo du amoo loo fayale say doom pour ñu jàng ñun ñëpp dañuy mujj nekk ay ouvrier dem jàngiwaat mhm, métier mhm. lii la dal dal leen chance bi nga am dëkk sa kër baa ñu amuñu chance boobu mhm. fu ñu jëm kaw gi dañu leen a dañu leen a yàq mais mais Mansour cinq cent mille bi ngay am dundee ko fii nii nii ñaari fan fii nii si Dakar cinq cent moom boo ko yóbbee ci kaw gi ah mën na la téye weer cinq cent bi ngay waaw léegi ñoom am na cinq cent mille maanaam supposons man mi dëkk taax fii ma gàddoon sama 500 dem sama dëkku maam xombal dem toog fa xombal sax léegi du ma wax ne kii parce que. dëkk taax léegi sax dañoo développé ñoom ñëpp ñoom ñëpp dañoo def développé ñun ñoo koy waxee dëkku taaxaax yooyu mais loolu mën naa siy dund. foofu gëm naa ne man koppar boobu sama koy doon foofu la ma dund di gën a yombee que man nekk fii si dakaar pouvoir d'achat Dakar moo gën a metti fuuf ko bi nekk kaw bi quoi qu'on dise quel que mm-hmm. soit mm-hmm. alpha mm-hmm. nawet bu jot maam xamoo kaw lay waxoon waaw kaw moo la gën a cher taxaw wax la non maam déedéet <laughs> kaw gën a gën a cher taxaw wax la ci internat maam man boo jëndee saako waaw loolu gi dafa ne fépp coono gi la nekk par exemple ceeb bi nga xam ni mooy ceebu non parfumé ñun ceebu ceebu baadoole ñun boo ko jëndee euh, fii Dakar mën nga ko am xëy na quatorze mille cinq cent wala treize mille cinq cent tout dépend ci njëgu Dakar man jëndewuma ceeb Dakar campement laa koy jëndee nga dem campement mu tegu cinq cent léegi boo ko transporté campement yóbbu ko kër Songo tent baab kër Moussa kër Mali bi mhm. kër Waali mhm. da ciy génnaat mhm. non ceeb ak diw ci kaw gën a gën a cher que Dakar parce que yaa ngi jënd yóbbu parce que da nga koy ne xam ne yow xam nga dund kaw ga dëgg dëgg dëgg dëgg mhm. dund nga fa xam nga ko mhm. ah nga yor boobu dem fa mhm. je te dis man nga dund la nga parce que ñoom luxe sonalu leen ceeb parfumé wala non parfumé sonalu leen dañu leen a jalis loolu sonalu leen yow man mi nekk Dakar peut-être man la ceeb parfumé sonal man la dibiteri sonal wala lenn man la sonal mais ñoom ñi nekk foofu loolu sonalu leen luxe sonalu leen du seen sax seen problème daf leen war a sonal nag parce que dund gi dañ ko war a ci ñëpp loolu am na loolu am na dafa war a sunu loolu am na loolu am na mais dama la bëgg xamante ne même droit la ñu am ah kay weddi ma ne ñoom même droit yi lañ la ñu am waxuma ne waa kaw ga ñu droit dama la bëgg ñoom ñoo ñu gën a noppale ñoom ñoom ñoo ñu gën a noppale ñu gën a ñun ñoo ñun ñoo ñu. maam loolu du ah, ñun existence du seen problème. ah kay. ah kay maam loolu du tey. yàlla xam na ne ñoom ñooñu man man man ma dem dëkk kaw ga sax moo ma gënal parce que si laay gën a ma juddoo dem dëkk si kaw a noppalu. man ma juddoo benn dëkk rek moo amoon courant ma xam ko. Mm. mu tudd campement Ngékox. benn dëkk bu ma xamoon mu am courant. Mm. campement Ngékox la tuddoon. tey amul benn dëkk bu ma xam ci village bu amul courant ak ndox. courant bi yegg na fa. ndox. Mm-hmm. dañu leen koy may courant bi. comme que ni ñuy fayee dañu leen koy may. non duñ leen ko may. fu ñu jëlee lu ñu ko fayee. Mm-hmm. képp koo gis mu miire kër baayam waxuma kër boppam de. Mm-hmm. ñi ma xamul ñëpp ñu nekk suñu ay mag ñun suñuy bàyyi woon ñu ginnaaw ku ci miire sa kër bàyyi sa toolu bàyyi nga jaay. Mm-hmm. pour miire ko yow amoo kër. lotissé sa desu suufu bàyyi yaa ngi koy jaay. say doom lu ñu fay fekk. kaw gi ndóol gi fa nekk. nit mun ko imagine maam. bul comparer mukk Dakar xoolal kaw kaw fii. Dakar bu xëyee bu xëyee am doole bu xëyee am doole mun nga dem. manœuvre ji yanu ji am 3000 francs mhm. kaw ga boo xëyee doo am 250 yooyu fay kalandoo pour dem ville. Mhm. te gis nga courant ak ndox. soppiwul village. Mhm. ñun suñu dëkk fukki kër ak benn la woon benn ba gent mu des fukk. sama dëkk maam ba ci wetam kër mbay jéey juróom-ñetti kër la. njóob defe naa fukk ak ñaar la. kër jaaja matul fukk tentu baaba fa yokk étranger yi song nañu leen mhm. benn jour ma wax ko ku dëkk tentu baaba mënu ko bu ngeen demee ba foog ni dëkk bi dafa évoluer tax ngeen tàmmal seen bopp jaay terrain deux millions yéen a ngi posone seen bopp te yëgoo leen ko mhm. fi seeni i doom ak yéen fi ngeen war a dëkk lay jàmbur ñëw jël ko dëkk bi nekk mujj nekk multipôt mhm. xam nga lu ngeen di mujj di wax da naan dëkk bi de ñimewul ñimewul nji njëmbat la ñimee mooy ñi gane si ci dëkk bi mhm. toxo si fi ñu fi woon ñoo fi gën a tekki mhm. am na dëkk yoo xam ni noonu la ñuy bàkkee ñi fa ñoo sànc si fa mhm. dañ naan dëkk bi bëggul nji njëmbat la bëgg maam village yi village la nekk yàlla na ump waa taax yàlla xam na ne man li wax xam dama ne li ma wax dafa leer de élage hmm. nee naa la yow mu nekk Dakar yow lan par exemple rek exemple daw yow la ndox mu ay ay ay ay yi ñuy def si bitéeli intéresse parce que bëgguma joxe marque marque ndox moom yow la peut-être courant intéressé bien vrai que courant ak ndox nekkatul luxe. Mhm. courant ak ndox du luxe nécessité la. Mhm. gis nga kii nga xam ne moom moo judd judd village boo ko tànqalee si ndox mi jox ko mu naan si teen ba. Mhm. mais yow man miy jógee Dakar man man man man woon euh, sa xombal googu sa moo ma doon gënal ma judd Dakar fii parce que yu bëri boobaa du da ngay am benn esprit de dépassement ñoom bu ki jógee village ñoo dëkk Dakar dara du ko sonal. Hmm. lu ñoo gën a am jàmm ñoo gën a eh, soxla it gëstu état maam li nga wax nii yow kay village parce que peut-être xam nga la moo tax ñoom ñu gën a soxla état maam ah état bi yoon la mu xëcc fa ndox ma yoon la mu xëtt rëdd fa tali yombal leen dund bi structure sanitaire yi nga xam ne am na ci taax ba pare yombal leen dund bi li nga wax ni village loolu mooy yombal dund infrastructure de base man waxuma dund luxe wax nii man dund loo xam ne dañ koy. village ñaataat la village ñaar fukki at la ci ginnaaw <laughs> village amatul teen léegi village yi amatuñu teen buux nañu leen ba ñu suul ba ñu fatt seen i teen. waaw ah, jaay nañ seen i suuf également. jaay nañu seen i suuf amatuñu ay tool ñu bay amatuñu tool te indil nañu leen courant ñuy fay facture. <laughs> Eh. Hmm. Euh, li gën a bon mooy courant bi ne ci kaw gi. payug jiital la amul facture. da ngay da ngay fay noonu da ngay jënd da ngay jënd consommé. comme ñun li ñu am fii si kii. Woyofal yi Woyofal yi boole ci yow. li la Senelec di jaaye nga koy joytu mhm. li ñuy jaay ci kaw gi gën a cher mhm. courant wu kaw gi mhm. courant wu kër song moo gën a cher parce que kiy jaay waa kër song courant da koy jënd ci Senelec beneen société étrangère la jënd ko jaayaat leen ko waaw diggante diggante société national ak askanam. loo fi dugale société étrangère. waaw ah, loolu Sénégal mooy doxalin <laughs> Sénégal loolu moom jàmbatu Sénégal la moom du sax du ko kaw gi rek waaye loolu jàmbat gu maase la ci Sénégal. Eh, j'en profit di nuyu bu baax maam Diarra Da Silva maa ngi gis message yi bu Sud FM Ndiogou Prera Augustin Lopi Antoine Salvador mm. Ibou Goudiaby ma leen di nuyu bu baax mm. Mame Diarra Da Silva démb maam démb démb ak maa yàgg ci village yi mm. démb man dund village dafa neex yàlla xam na loolu man xombal sama pap bu ñu fa daan yóbbu. Oh. xeetu xam nga la moom la moom may ma koy fàttali. xeetu dute. fajar gi bi ñu daan toog noonu génne. dute sax bareetul daf may daf bu ma xeeñeer sama xel xombal la may yóbbu. sexew yëpp gor nañu leen. àll amatul wen. Uh-huh. amatul xureet. amatul dimb. amatul soobaan. amatul yiir. amatul xaasaw. amatul rat. Ah? amatul loorat. loolu yëpp ci kii la amatul senjeñ amatul ditax c'est que àll bi yëpp la dagg quoi amatul wuul àll bi bekkoor yooyu ay valeur la woon maam démb maa ngi taxaw maa ngi taxaw ci benn kàddu bu ñu gor ma doon def benn benn vidéo ak sama caméraman bi ma àndaloon ci àll bi ñu fekk pël yi gor kàdd yi ba xont ci seen i nag ba seen nag suur ñu ñëw felet mbatti matti mi am ci lobb lu ñu mën a togg ren ba déwén amaat yi lu ñu mën a jaayee bu nawetee dañ daan toog ba digg nawet am mel ne mag mu dem jël mattum kàddam takk ci say yëpp ko ci charette yóbbu ko mbuur mhm. waaye yow léegi kuy jaay matt di dem mbuur wala ngekoox lontu lay ñu dañ daan jaay matt mun mhm. jaay naa matt mhm. daan nañ toog ba nawet bisu altine yi nga xam ne moo daan nekk suñu dimanche daawuñu woon dem tool ñu dem ci àll bi ci gott yi dagg fa mattum ngeer ak sexew ku nekk jéem a am lu mat fukki say bu altine bi dellu see bu dellu soir muy fukki fan juróom fekk waw na ñu takk ko ay say fukki dërëm yëpp ci soxee dem jaayi ki jaayi bu ñëwee jox la sa cinq cent mhm. nga fay ko nga fay ko kursam yooyu da doon am léegi léegi amatoo gott boo daggee sexaw amatoo gott boo boo daggee boo daggee boo daggee ngeer am na mëneen mattati mu neexati woon mu bokkutul ak sexew waaye waaye dédd dédd tax ma koy faat defe naa dédd la de moo nekk ci àll bi ak ak ak matum suuróor yooyu yëpp dafa xewi tey hmm. te te kaw ga soppeeku wuñu soppeeku wuñu dund kaw dafa am réalité dund taax am réalité wallaay souffrance bi ne ci kaw gi buñ ko bu ñu ko yëgul li seen xaadim Mbàkke wax mooy dëgg hmm. kaw gi sonn nañu dem am sonn nañu non Sénégal ñoo sonn dañoo sonn dañ koy dañ koy maam sonn parce que boo duggee ci ay kër ñuy def gobar jaas yi togg añ tubb ci reer. Ah. yaakaar naa ne dul kaw gi rek loolu maase na. ñeel doolu président de la république jot ci ngir saafara gën a am ndax Sénégal daal fi mu toll. Mhm. loo ti wax te neewoo métti na rek waxoo dara. Mhm. metti na daal te ñëpp koy yëgandoo Omar Diallo 6 ans la mi ngi dëkk Kër Massar. dafa réer depuis dimanche vers 4 heures yaayam Penda Coulibaly papam Alioune Diallo koo gis na woote ci 77 173 14 03 Daouda Diouf ñu gën ko xam ci Njombe. mi ngi am vingt ans mi ngi dëkk Castor dafa réer depuis le 7 avril yaayam Ndeye Ndiaye papam Daouda Diouf ko gis na woote ci 77 666 15 07 Aljuma Sagna

zéro zéro. <laughs> Abi Thiaw baalu ma la. Abi Thiaw nee na yaa bëgg àll. bu bu ñuy waxtaanee kaw yeeg àll bi sax bi day naat. la <laughs> yaa dafa neex de wóor dafa neex. maa ngi lay alaaji. Ah? <laughs> bi. waaw ab soxna xale bu jigéen. Mhm. xale bu jigéen bi nag mu ngi ci mbedd saa si tembe di taxawaalu. ak mm. doomam bu ndaw perantal ak ëmb bu mu gàddu. ëmb nee na nag yaayam dafa amee jafe-jafe xel kër nijaayam la nekk nijaayam nag daf ne ko mm-hmm. mënuma yore sa yaay ngay jur di indi ndax dafa njëkkoon am doom feneen mm-hmm. doom joojoo nga ak nijaay ji ak yaay ja mu yor mënu ko yor moom moom mu ngi borom kër dem ni borom këram sa rakk jëkkëram dafa may sàkku mm-hmm. maanaam dafa may wax wax yu wax waxu bëgg maa sàkku daal mu ni rakku jëkkëram da koy sàpp. déedéet rakkam moom rakku rakku jëkkëram bu jigéen. waaw boroom këram. mooy ñëw ca kër ga ah. di ko sàpp. Ah. ca la nag njëkk la jugee ca këram ñëw xeex ak moom yaay ji sotle ko ñu xeex xeex gu métti. ah jëkkër njëkk li moom xeexut ak jëkkëram ji déedéet ndaw si la ñoo xeexal. ndaw. si nee na ci noonu sama jëkkër xam ne maa am dëgg mu dem porter plainte. ba jël nan jëkkëru rakka ja tëj nan hmm. ñu defa tib diir boroom kër gi ne day jóge ci dëkk ba ñëw dakaar pour liggéey si mu ne ko nag comme dañuy liggéey si te néeg bii man yow ak sa rakk ñoo fi doon fanaan dootuma bokk moom néeg bi ndax buñ ko bokkee ñun ñaar kese mbedd bi dinañ wax ni am nañ lu nu séq hmm. yaa ngi dégg hmm. ca noonee bàyyi ba ca la ko génnee kër ga nag ne ko yàgg sama doomay fanaan lu ko mooy nga génn kër gi bàyyi kook néeg bi moo doom ci góor. waaw ah, loolu tamit doom ji mag la. ah li tax mu ragal waa kon Medina Yusuf kay mag la. ah tamit hmm. dafa gaaw tee. ñu koo déglu. seetaane waxul dëgg na am xel ay ca. te doonu samay tànk moo di sama njëkk ak sama goro ñoom ñoo ma jàppoon di sot parce que léegi li ma war li ma jote ak ñoom nee na sama njëkk ba mu ne rakku jëkk mag magu jëkkër maam jëkkëram boobu moom moo tax mu di ma dóor. te parce que jëkkëram dama doon sàkku man bi ma jëkkëram di sàkku nag ma suturaal ko ba sonn wax naa ko ba sonn tamit bàyyi ma ko wax ndax man séqu ma ko yow moom après lànk na léegi man si la ko sama rakk jëkkër bi wax sama jëkkër laajaan ma ma waxaat ma jaaraat fi rakkam jaaroon après moom léegi mu dem këram mu wax ko magam magam léegi bi mu ñëwee mu ko jëkkëram si la jëkkëram ñëwee naan si kër gi xeex ak sama jëkkër léegi ma xeex sama jëkkër ñoom ñaar léegi nag léegi sama sa rakkam boobu léegi nee na moom ñëw na si kër gi jóge na kër jëkkër ñëw si kër gi nee na man maa ko fi indi parce que nee na man damaa eenal jëkkër nee na jëkkëram maanaam moom moo tax mu eenal ma ba tax mu jàpp ma di ma dóor léegi mooy yaayam ñoom ñaar ñoom doon soto léegi yaayam dóor na ma bale sama loxo dóor ko si mbagg dóor ma ko si bopp léegi moom dafa ma wéq si biir ba déplacé sama doom bi mu déplacé sama doom léegi ñu dem janatu bi mu demee léegi après si lan ma bindal ay garab yoo xam ne war naa ko mën naan doom ji delluwaat euh, fi fi fi lii bi fii mu war a delluwaat après léegi dama dem ànd sama papa ma bind communication léegi ñu war leen ko jox talaata ñu bindal ma ne ma talaata nga ñëw ñu yóbbu ko ñu ñu woo ñu woo leen àllarba leen war a wuy ji. waaw léegi ki nga xamante ni moom moo la doon sàkku kooku moom moo ngi ci kaso bi. kan moo ko yóbbu kaso. moom problème boobu noonu si leen doxee après ñu moom ñu yóbbu ko kaso. léegi bi bi nu amee problème léegi nag mooy waat ne moom dina ma tëddee léegi si la ko sama jëkkër daane ko kon baax na bu fekkee di nga ko tëddee comme baax léegi nag après si la ko sama jëkkër bool ñu tëj ko si kaso bi. moom xanaa dafa wérul bam naan tëddee force. moom day def saabu naa ne daal di ñëw si kër gi dama dinaa la tëddee mais moom. waa day maan ne mais moom dara jotu ko. bu ànd ak sagoom day ñëw kër gi toog ka waxtaan mais heure bu màndee rek day ñëw ne ma dinaa la tëddee. soo saa bu ma tëddee daal man mu ñëw fëgg ma fëgg taxaw sama palanteer di ma fëgg. voilà léegi yow lan moo doon problème parce que comme que kooku léegi tëj nañ ko ci kaso bi léegi yow ban problème nga amaat foofu noonu ba tax nga ñëw fii. problème bi ma amaat muy sot googu noonu ñu ma sot moo tax ma dee subaat fii tegaat si tamit beneen sama goro bu góor wala maa sama rakku jëkkër may fanaan ak moom léegi man ak sama jëkkër ak sama rakku jëkkër ñoom. fii man ak comme yaa ngi dem waroon ngaa mën a lijjanti lii bala ngaa ma comme man sama papa moo fi yebal ma di fanaan mënumaa génne sama rakk léegi après ñu bokk ñun ñëpp nekk si néeg bi di fanaan sama jëkkër dem Dakar man moom léegi ñun ñaar ñoo fi des di fanaan léegi bi ñu fi des di fanaan ma ne ko comme yow di nga génn néeg bi mu ne ma man du ma ma ne ko di nga génne man duma ma génn après c'est la xeex ak moom si néeg bi après ñu génn si bi ñu génnee. léegi waaw sama rakku jëkkër bi laay xeexal ne ko duñ bokk néeg bi après moom si la ma génnee si bi ñu génnee tijji bunt bi ñu génn si bi moom si la ma dóor kuu ma daanu mu dóoraat ma daanu léegi après papaam yëkkatee ma suuf poñe ma xoj ma sama baat bi ba ba ma sonn mënumaa wax waa koñ bi ñoo daw ñu tàqale ma moom léegi ma si laa sonn mënumaa wax léegi bi ma def bi ma xëyee mun ma di nga génn sama kër si xaj comme danga da sama doom bokk moom néeg ma ne ko man du ma bokk moom sama rakk jëkkër du bokk ak moom koñ bi comme ñu xam ni nu demee dañuy jàpp maa séq ak moom lenn léegi moom du bokkati man néeg fanaan man ma génn moom mu génn mun ma kon yow nga génn sa xaj moom moo gën moom mu génn si waa boo génnee sa xaj moom mooy fanaan si nii bi après waaw. voilà léegi yow foofu ndax am nga fa ay njaboot yu man moom benn doom laa fa am ak kii nii ma ëmbaat. ak kii nga am nii. waaw moom bi mu déggee loolu moom lu mu wax. moom da ko waxee problème yi moom danee maanaam lu ko xelam may ak xolam na ko def na mënumaa tëjlu sama yaay tëjlu sama rakk mënumaa tëjlu sama baay it li leen seen xel may ak i mbokkam daal mu def ko ak seen xalaat loolu la wax. waaw mais daal kon daal yow dóor bi ñu la dóor maanaam loolu moom moo la métti daal ndax maanaam mën nga cee jëlee avortement wala yu mel noonu. waaw dóor bi ñu ma dóor tamit ba ma ba sama doom wàcc déplacé wu mën na ma siy jëlee avortement tey su fekkoon ëllëg dama leen bàyyi dama leen bàyyi woon ñu dóor waxuma leen dara ma dem sama papa ne ma baal leen ban tollanti ko léegi nag tey dañ ko tollanti waat léegi loolu laa bëgg man ku ko lijjanti ndax man papaam génne ma man maa ngi si mbedd mi amu fenn fu ma nekk démb si mbedd laa fanaan billaahi wallaahi wa taalaahi ma bëggoon nag comme man damaa néew doole ma bëggoon na ko ma dimbali man nii commencé sama papa de sama magu papa laa nekkal sama papa gaañu na man respecté sama papa sama yaay dafa xaw a wér wér di xel te man amu benn mag bu góor boo xam ne man maa soutenir wala sama. man daal man sosuma si kenn léegi ma bëggoon na ku ma dimbali ngir yàlla ndax man ak sama doom boobu noonu boo fa dëgg yàlla bëgguma ko gàllankoor ëllëg ñu rey ko reyaale ma wala man ñu rey ma man mi reyaale ko bëgguma loolu daal bëgguma gàddu bàkkaaram daal léegi ma bëggoon na ku ma dimbali rek ngir yàlla. waaw léegi yow sa jëkkër moom mu daa bëgg a xam yan décision la jël ngir génne la utal la feneen foo nekk ngeen nekk fa si jàmm wala moom dafa laa fas yéene bàyyi foofu ci kër ga rek ñu di la dugal moom ba fa dëgg kër gi rek laa war a mën a nekk te moom amul fenn fu ma war a mën a dugal ak fu ma war a mën a àbbali amu ko te moom moo ngi Dakar di liggéey ndax lii bi ñu koy def Dakar la ko fekk waaw mais yow dëgg la amul am xam nga sa sa waay jur comme li nga ci waxee yu mel noonu mais est-ce que amoo yeneen mbokk ne sama magu papa laa ko wax sama magu papa laa àndaloon dem foofu noonu léegi nag ñu combiqué leen après mu ne ma léegi yow suñ la wooyee booy dem nag may woone ma maa ngi dem léegi su ko defee ñun ñu ñëw foofu noonu fekk la fa mais xale bu jigéen daal si yaayam la war a dem te sama nijaay dem naa fa mun ma comme kër gi daa xat mënoo fee nekk mënoo jur di indi say doom léegi sama benn doom bu góor moo fa nekkoon ak sama yaay léegi tamit beneen doom bi ma am fii may sëy léegi moom nee mënu faa nekk léegi na man maa ko nekk si mbedd bi may ñëw sax dama ko dénkaan si kër wàcc foofu noonu doogu ñëw. d'accord mais est que yow dem nga ci dem nga ci yoon ngir wax leen li nga xamante ni moom moo xew. dem naa si yoon wax naa leen ko. ñoom li ma wax mooy dan maa bindal kayit dama leen dan maa dan ne ma demal fii nga bind communication ma dem foofu bind ko après daal liñ koy jox léegi ñoom ñu bindal ma kayit talaata ne ma bu talaataa nga ñëw léegi nag bu ko defee nga joxe communication bi set de mu jàllale ko àllarbaa ngeen wuy si. d'accord merci ah lu ngay tëjee. Hmm? may tëjee moo ne man ndax ku ma dimbali te jàppale ma. tax xaw ma nag jàppale gi ci fan lay fan lay jublu parce que jàppale gi njëkk yaakaar naa ne moom mooy dem xanaa wax goro bu góor la ñu bàyyi ko mu ñëwaat ci kër gi loolu de moo jiitu. wala wax ak borom kër gi mu wax ak papa mu bàyyi ko mu ñëw. jéem ci baale daal. wala borom kër gi utal ko pexe ut fu mu ko fat. Hmm, dong la de. Hmm? nga yéeme rek. Hmm? ma ne waxaa borom kër gi bi ci waxtaan ak moom parce que mbokk yaa ngi fi xam naa ñu ngi koy déglu te gis nañu. mais lan moo tax benn mbokk nangu ko fat aussi. question la loolu tam question la bu am solo. question la de question bu pertinente. soo la de parce que am na nooy mel kenn du la nangu fan. sa rakku papa ma nga fa ni jomm. waaw sa yaay ne fa ni jomm. Hmm. terewul yàq sa doom ci boppam ci mbedd ngeen di fanaan. Hmm. lëf la de. ah jar laaj de. Hmm. loolu tam jar na xool. ma ne su ma amoon conseil bu koy jox mu jéem muñ la waxtaan ak borom këram ut fu mu toog. te mu man daal conseil boobu laa koy jox. conseil boobu daal laa koy jox. que nii mu nekk état bi mu nekk xale bi mu yor nii. Mm. mënta nekk ci mbedd. Mm-hmm. mënta ne donc boo amee ko la mën a fat rek sa borom kër bu dee mën nga. wax mais fan la nekk fan lañ ko jëlee moom ban correspondant moo la ko yónnee Touba wala. Euh, Abdoulaye Fall moo ma ko yónnee. Touba ok. Abdoulaye Fall ko yónnee. en tout cas. jéem a trouver solution rek. Hmm. question bi gën daal mooy waxaale waxaax mbokk yi bañ jëlaat ko. Hmm. ne serait-ce pour doomam ji sax. Hmm. loolu moom solution boobu daal mooy di gën. mooy di gën de. baax na. yàlla baax na. Chimère ku fi ne. monde. waaw. Baar naa la. Baay noo def. Mbaye a ngi am jàmm. waaw maa ngi am ñu bëri. alhamdulilah. yàlla na ci amuñu ak baax na. foo merci beaucoup. L'actualité du trafic du sur la 89.7 sur la route des hydrocarbures, communément appelée Yolu Yarach, là où nous passés tout à l'heure en provenance des certains blancheries à destination rond-point a moins d'embouteillages malgré nag ay wët yu bëri ñoo ko choisir teewul mën ngeen ko c'est-à-dire circulation sans perdre beaucoup de aussi rond point Escale foofu la aussi amul jafe-jafe n'importe quel sens soo bëggee mën point bi daal di wéy seen progression une fois ngeen dépassé rond point am ngeen possibilité ñi nga xam ne nii dañoo bëgg a dem des côté centre niveau de la zone industrielle foofu par ceci appareil aussi la voie qui mène vers la sortie de Colobane jaaree ko nag cette idée ni ñoo bàyyi ko donc côté sur l'autoroute vers le rond-point Colobane foofu la ñu ne longue indi véhicule mu leen di xaar si ak boobu la naka noonu aussi boo leen bàyyi ko sorti Colobane foofu la aussi yàq na ak ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko marché HLM ñoom ñëpp ñooy transité au niveau du rond-point Colobane tax na yéex na lool laata rek ngeen di dépassé rond-point bi. mais rappeler aussi fii donc l'autoroute ñi nga xam ne ñoo béy ko le changer de an Colobane daal di wutiri centre bi foofu la aussi mën ngeen ko jaar daal di wéy seen circulation naan sax wati yi takku leen lool pour le moment mant la Samsung daal mooy kii dul tay ci di leen indil ay mbégteel yu neex bànneexu leen ci série Galaxy S22 bu bees ak bi leen Samsung indil ak ay appareil photo yu xarañ Galaxy S22 série daf leen ay photo yu leer nañ rawatina guddi gi ak S Pen bu bees bi di ànd ak Galaxy S22 Ultra liggéey ak téléphone bi day gën a yomb ngir ngeen dundu expérience boo leen dul fàtte yéen itam agsi leen ci révolution bi ngir am garantie Samsung Care Plus cover ak 22 giga yu leen Orange di may offre bi nag dafa ànd ak condition ci kaw stock bi disponible valable fii ba avril Vous voulez perfectionner votre niveau L'Institut français du Sénégal vous accompagne dans l'apprentissage du français. Rejoignez notre de langue à Dakar du 5 avril au 13 juin 2022 pour des cours adaptés à vos besoins et progresser à votre rythme. Contactez-nous au 33 823 03 20 ou au 33 821

mbégte ak barke saa su nekk ci weeru sell mi ñu jëm groupe Arla moo leen di si gunge ak produit yi gën ci seen waañ waxtu mbégte yoo leen di dund ak seen meew dano seen gamme fromage Arla ak seen beurre pak mu sell mi neex ci mburu te gën ci seen togg weeru koor gi lépp la ñuy bokk ngir ful suñu mbégte ak suñu produit groupe Arla weer wu sell produit yu sell rek ñu ngi leen di ñaanal kóorub jàmm. Quand il s'agit d'avoir le choix, il y a les nouveaux Samsung Galaxy A série.

deuxième tës bi alaaji Mame Mbaye Chimère. Hmm. <laughs> mel ni ku nekkee école bi. dama leen di lim. wala Chimère tëj na génn <laughs> taalibe sëñ Saalum. du du ci wax lu kii de. luy tasum réew. Hmm. deuxième tës bi. Hmm. waa ji nee na rakkam la ñu tëj. am na quatorze mois ci prison bi. la tax ñu tëj ko nee na dañu amoon jur. nee na ay sàcc ñëw sàcc seen jur rakk ji dàq leen ay kilomètres yu bari ci la jamee benn sàcc bi ba faat ko mm. beneen sàcc bi nag moo daw police boole yaa ngi dégg daa jàppaale nañu ko ba muy boole jàpp ñu ko moom sàcc bi moom moo daw ne am na ku ñu rey fee maanaam boole ki rey ah dafa dem boole ji moom ci la ñu wëlbatiku nag jàpp ki nga xam ne moom moo rey depuis 14 mois nag mi ngi ci kaso bi nee na attewuñu ko waxuñu leen dara lu leer ci dossier bi. tës mhm. ba nag ma nga ca sàcc ba boole ji tëj caat. moo dem boole ji. ana ma léegi moom. jàpp ñu ko. waaye léegi moom bi boole wax na la man sàcc laa. <laughs> <laughs> Sénégal neex na. waaye léegi booy boole. mais mais nit dama doon dem di sàcc ma sama groupe <laughs> léegi si ñun ñu rey ci kenn ñu xool luñ lay àtte. déedéet. kon du muus buñ juree <laughs> problème bi maanaam affaire sàcc yi ñuy ñëw sàcc suñu gétt bi bon sàcc bu ñuy ñëw sàcc nag yi ñu yóbbu ko ak quatorze euh, waaw presque huit kilomètres waa ji topp leen bu mu leen jàppee. ñoom loolu ban dëkk Bajaar. Bajaar Badiar eh, région Sédhiou la. Sédhiou la nekk waaw Sédhiou. ok da ngeen amoon ay géttu nag. waaw dañu amoon ay géttu nag mhm. léegi pôles yi ñëw sàcce foofu ñu waa waa ji topp leen à huit kilomètres fu mu leen jàppee ñoom dañu yore fetal ñoom moom mu yore fetal bu ñuy xeexee moom mu gàññee leen mu gàññee kenn kenn ki daw. moom moo dafa dañ doon tirante ay balu daaw. léegi moom mu rey ci kenn. mu rey ci kenn. sàcc yi ñaar lañu woon. sàcc yi ñaar lañu woon kenn ki moo dem gendarmerie déclaré fa. benn sàcc bi benn sàcc bi moo dem Dakar parce que benn jigéen bu nekk Sédhiou moo ko ne yow da nga doon ànd ak sama jekkar démb waaye ba léegi ñu ko mu ne ko sa sa jëkkër lañ koy rey loolu noonu ñu topp waa ji problème bi dafa bañ mu ne du du man ñu topp ko fa def naa ñu jàpp ko. mu ne du man ci lan. ci xeex bi. mu ne moom bokkul woon ci xeex waaw parce que naxam la ñu yor dafa mere boo léegi noonu ñu arrêté ko ça fait quatorze mois ba léegi. mu ngi prison kenn waxul ñuul ñool na ñool na wala ñuul. waaw xaaral ndànk maanaam yow kooku kooku nga xamante ne moom moo moom moo jam benn sàcc bi salal la. Euh, sama sama sama rakk la. sa la léegi moom lañ jàpp. moom lañ jàpp. parce que dafa rey nit. dafa rey nit waaw. léegi bi mu leen rey ñoom dañoo sàccoon ay nagam. waaw ñu yóbbu ko à huit kilomètres la leen topp. moom bala fetal yi doon dóorante xanaa moom bala fetal laalu ko. non non ko parce que moom dafa gànnaa gànnaay. nag yi anañu. wa nag yi bu ko jàppee bu mu ne bu mu xeex ñoom. Mhm. kenn nag si bu muy bu mu ko fetal ñu bàyyi nag mu delloo ko mais bi léegi ñu continuer sàcce ay nag yi waa ji mu ngi kaso bi prison bi. ok moom léegi bi ko police arrêté yéen da gën a dem récupérer waat seen nag yi. waaw dañuy récupérer naat yi waaye ba léegi waa ji mu ngi kaso loolu moom ma jaaxal mu ngi kaso kenn waxul ñuul na wala weex na. atewuñ ko. atewuñu ko ça fait quatorze mois. quatorze mois boobaa ak léegi. boobaa léegi te temps yi mu ngi feebar. yow dem nga. ci dem naa ci moom. bi ah ça va pas man wax ma ko dara mère bi dama dem jor jóge fa rek ma dem continuer ci kii bi ma gisante ak gaañ mu jooma kay mu ne waa parce que justement fii amul kii bi ñu war ñi ko war a atte doñ doñ doñ doñu ñëw jëm moo tax léegi foo ko ñu xaar nuwoo kii bi bu ñëwee ci lañ cour de justice euh, euh, kii mu ngi nii. mais mooy greffier greffier foofu. waaw cour d' appel bi. cour d' appel foo ko cour d' appel ñëw parce que temps Sédhiou amul cour d' amul kii. Mhm. ah noonu la waa ji ñu tee ko noonu kenn waxuñu ñuul na wala weex na muy kaso yi wala ñu bàyyi ko mu dem kër ga bu kii fan la war a dem fii la judd foofu la yar foofu la mag. yéen lu ngeen bëgg. ah lu ngeen bëgg ak ah, ñu bàyyi waa loolu rek la ñuy bëgg. ñu ñu ñu àtte ko quoi même bu fekkee dafa am lu muy tëdd mu tëdd ko. ah loolu la non parce que euh, c' kuy sàccee ñëw xeexal suñ dëkk man ba jaar sama yaay foofu la jokkee ñii ñëw foofu sàccee nax yi heureusement dafa fetal njaago la bu mu ko fetal eh, magam bu jigéen tur turist bi comme lu mu dafa dem ci jalam bi bu mu defee poli nekk suñu côté yi ah ñoom eh, waa ji dee na jabaram dee na ñoom finaale ma finalement kër wu fa ñoom ñëpp dem. ki nga xamante ne ni maanaam maanaam eh, moo ci des. moom la doon xeexal te euh, sàcc bi ñaar lañu woon. kooku noonu dañ koo jàpp. kooku daw jàppul kooku mooy mooy dem changement sa bu déclaré foofu daw. ok dafa dem gendarmerie rek ne dafa amoon àndoon ak benn xaritam ñu rey ko moom daw na léegi. daw na waaw moom moo dem déclaré gendarmerie waaw loolu la ñun de du man daal lu ma doon kiyee ñu bàyyi waa ji parce que yoonam leen ku ñëw attaqué la mu ñëw ak armée mu yow sànni naak yi à huit kilomètres ah kooku nga gagné ko ñu toj la ils n'ont rien dit jusqu'à présent ñu continuer sàcc ay gerte yi léegi ñoom maanaam dañu bëgg a ñu sàccee gerte yëpp. léegi fu mu nekk nii euh, gerte gi ñaata moo fa nekkoon ci ay nag. ah non ëpp na 40 kay. léegi mu nekk nii ñaata moo fa des actuellement. ñu fa nekk. gerte gi waa lu fa des si ay nag comme ñu koy sàcc ba léegi. compté ma ko dañuy sàccee rek dañuy sàccee bu ñu sàccee am ka ñoom du ñu seet bu ndaw bu ndaw bu màkk dañuy seet ñu sàccee ko. Mhm. waaw. xanaa foofu noonu actuellement kenn new fa. kenn néew fa comme mu ngi prison bi. am na ana ay jabaram. non jabaram mu ngi fa jabaram mu ngi fa waaye doomam. Hmm. kan mooy leen joxe dund. grand frère mu ngi foofu mais kooku nekkul kii waa ji moo nekkoon ci gerte bi. et eh? léegi moom mosul mosul maanaam mosuñu ko taxawal wala mosuñu ko déglu. non non non non mosuñu ko taxawal mosuñu ko déglu. dara dara dara parce que man bi may ñëw dem naa foofu ci temps mois bii passé mois bi ci biir mois bi ah ñu ne waa ji parce que bon. amul ku ko war a àtte parce que kenn nekku fa comme cour d'assises wala nekku cour d'appel waaw alors loolu tax waa loolu tax affaire mu yàgg ma ne mais c'est pas normal bu fekkee loolu la kay bu ñu ko kiyee comme dañoo xam ne waa ji daf ko tooñ ñu bàyyi ko mu dem këram saa bu ñu ko soone ñu woo ko def naa moo gën bi affaire bi amee ñaata temps la toog avant ñu ko doon jàpp ah mat na presque deux semaines ah toog na waaw police moom moo gendarmerie moo ñëw foofu noonu. jàpp ko wala moom moo dem ci moom moo dem foofu noonu. Oh, waaw waaw. parce que xaaral. ah loolu la parce que dañ ko bàyyi lu toll ay ñoom sama di def enquête bu ñu kiiyee bon ñu ne ko comme yaa koy rey bon foo ko euh, euh, kenn kii la moo tax ñu téye ko. man nekk ba fii dama voyagé woon dama ñëw rek ñu wax mu ma dem comme kaa boobu lañ may wax ma dem ba kii bi. gis si ay laamin laamin greffier bi laamin maa eh, kii laamin bi greffier bi ma di koy laaj ma ne ko kooku am ko nekkul benn yoon nekkul tey yoon nekkul tey suba eh, suba yoon kooku ku def loolu bés àllaaxira da ngay liggéey ndax sa borom waaw parce que da nga xam ne exactement kii daf ko tooñ tooñ bu rëy nak bu ko jëlee gett bi gett bi yóbbu ko à huit kilomètres huit kilomètres nga topp ko noonu nga daal di jàppante ak moom foofu tey fekkee mu yóbbu sa néeg bu dee sa alal la bu ko ko yóbbu noonu dalay neex instant bu da jël sa bopp. père moom bi muy bi muy yóbbu nag yi benn nag la woon wala gétt gi yëpp la daal. non benn nag la yóbbu dañuy jël pa dañuy seetlu leen baax rek moom la ñuy yóbbu. nag bu ci gën a baax. waaw. moom la yóbbu après mu topp leen. après mu leen waaw. ok léegi yéen da ngeen ko arrêté da ngeen jël avocat. waaw jël nañu avocat. seen bi la leen wax. ah ñu daal presque ba léegi il n'a di dit kii parce que waxuñu gars yi dara waaw moo tax man daal vraiment dama voyagé woon dama ñëw ñu wax ma cas bi non ma ne c'est pas possible moom mënut am bi may ñëw parce que nekk moon fii c'est voyagé wax na la côté Mali laa nekkoon waaw côté Mali laa nekkoon may ñëw ma fekkee cas fii sama ginnaaw bi ma demee cas bi ñu ma ma laaj ko ñu expliqué ma ko yëpp ma ñëw ba Sédhiou dem ci kii bi boobu laa waxtaan ak la la laaman bi laaman bi greffier bi ma ko mais cas bi lu muy demee ba ñu arrêté ko noonu sàccee ñëw sa sa bi sàcc sa nag bi yóbbu ko à huit kilomètres nga topp leen nga jàpp leen da ngeen xeex kenn kii daw kenn kii de léegi ñu ne ko lu tax euh, non delloo na kii bi lu tax bay na ko ñu tax nga ree waa ji waaw. Ah. mu ne parce que daf ma dóor dafa génne fetal di ma dóor. waaw ma ko ba fayu. après mu jam ko. après après waaw dañu doon jàmmante. kenn ki moo doon wax c'est-à-dire am ka ñoom ñaar njëkk ñoo àndoon benn na pël moo jaar ci biir yaram lu ma toosul mu ne ko ah yow yaa àndoon sama jëkkër léegi sama jëkkër ana moom ci la jigéen naa ci la waa ji ne sa jëkkër bi daal dañ ko rey alors ci a ñuy dem gendarmerie bu ñu demee gendarmerie gendarmerie def enquête nekk c'était vrai mais lu toll à mais sa waa ji loolu kay. léegi daal li bëgg mooy ñu am ñu li nga bëgg mooy ñu àtte sa grand frère bi. sama sama rakk la. sa la waaw sama rakk la. ñu àtte ko ñu àtte ko ñu bàkk ko moo gën. parce que tooñe baaxul. dañu ko tooñe bi kanam yàlla. te bés booy def def àdduna fi àllaaxira da nga koy kii kooku mënut a ñàkk. waaw. lépp taxawaayu nguur gi la woon. nguur gi moo fi waxoon ni dafay criminaliser vol de bétail. bu fekkoon nag ni si am bu ñu jàppee sàcc. nga mu def nekk crime. ñu tëj tëj ko juróom jàpp fukki at keso gars yi dañu xaw a ragal sàcc te dina dal xelu ñi ñuy sàcc ba sax duñu mën a jëfandikoo kantan. Eh, da bëgg a def sàcc mu bëgg laa buum boo ko jékkoo da nga koy buum. bu mhm. noppi sama waay waa ji itam dem ni pattuwul dara. ba jabar gi waaj ñëw ak ko ni ko sama jëkkër yaa ak moom bëgg démb. gisoo ni ko la tué. dëgg la. ñu ngi rey nit yi ci anam woo xam ne doy na waar te je pense que nii ba fii nii ba fii nii. Euh, ci ci ni ma déggee mu wax. Euh, réew mi nag moom aw lu la nit mënti def rey nit moom dañ ko fiy tere. <coughs> ak fu mu <coughs> des ba mu des. alaaji adduna ah. bépp la ñuy aéré nit nag. waaw kay non non dama ni réew mi. <coughs> ak fi ñu toll nii. Hmm. rey nit moom dañ ko fiy tere. fajal sa bopp maanaam dañ ko fiy hmm. tere. ba mu egg ci rey. Hmm. donc je pense que dossier mais moom benn benn nit. mën na nekk ni dossier dafa nekk instruction te peut-être ñoom xamuñu. mais benn nit bu topp ñaari nit la. c'est-à-dire que moom bëgguñu ko woon a rey mu rey kenn ki. waaw mën na ne loolu lépp xam nga loolu lépp yoon bi moom moo koy àtte pour leeral ko je pense que dossier am dafa nekk instruction peut-être xamul moom moo tax peut-être muy muy muy muy il faut ñu àtte ko mhm. alalu jàmbur du alal dëgg la de dëgg la de. yaakaar sàcc tas la. bu bon sax te dañ ciy dëkk. bu bon loolu jur gi ñu ngi ci scooter yi loolu scooter yi. ñu ngi ci tëb ci kër yi sama rakk jaa ngi ma ko wax léegi ñu ngi ci téléphone yi. nit ñi dañ leen di sàcc nit ñi. sàcc gii ñi kay. sàcc moto yi mais moto yi moom daa ëpp. waaw moom da gis kenn ku nekk ci motoom ñaari supportante ñëw ba jub kenn ki rek këdd. mu daanu ki du supporté. mooy këdd kee bu daanoo kee def demi tour ñu këf moto bi jiitlante dem. Hmm. ah. xam na ci boo xam ne moom maa ko fekki ñii ci géeju Cambérène bi. Hmm. waa ji naka lay jël xeer. paaka la kee génnee. gis nga waa ji bu amee def nii rek ma yuuxu. bu amee avocat yu dëgg. Hmm. si si du du war a métti. waa ji bu amee avocat yu dëgg. parce que xam nga maam Toulaye waa ji ñi ko doon sàcc dañoo yor ay ngànnaay. Mhm. mu yor ngànnaay moom di jëlee alalam. Mhm. mu dab leen gars yi dawuñu de. dañoo ko raccord ak moom de. Mhm. xam naa da dul xiibon ni man rek. njàmbaarteem feeñ moo tax war naa am avocat de. waru metti dañ leen ko jàppale waaye magam a xam naa ne dinañ ci am liñ bëgg. waaw.